Serigne Touba Serigne Moussa Ka nee na kenn mënu koo nax wax na dëgg nee na woon ku fi wut si yàlla fees na fi dal dana ko fi am ku fi wut si àdduna mi ngi fi ne gàññi dana ko am waaye ki ko jaaxal mooy koo xam ne li ko yàlla jox néexu ko te nag loolu mën naa dal ku ne ci biiram nga xam ne day bind dina jaar leen nii ci bunt bii génn ci kër la jëm nga ne yoon boobu daa metti kenn mënu ko sëriñ Salihu mii nga xam ne gone yépp xam na ko nee na woon roy boo nee nañ def nangam ñu ne loolu suñ ko mënoon lu ñu koy toppee nee na kenn mënut a doon kenn waaye ku roy sëriñ Touba ak gaa yi toppoon ci ginnaawam da nga raw ñu bari sëriñ Touba ku yaatu gannaaw la ku ubbiku la lim jariñ nit ñi jullit yi ñoo ci gën a néew murit yi ñoo ci gën a néew murit ak jullit ñoo ci gën a néew guerre bi fi amoon 1914 ak 18 Serigne Touba joxe na ci alal تكوتي لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهودي مر سوامع سبل يتاكي فبت فرانس جا في لجم السنغال كان في جامع الله لهودي مر سوامع وبيا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا جخت علل جخت اي سلطان دوم الشيخ ابن فالدين يوخ سرين فالي فال سرين توبا قيابال مدام تجارب فالدس ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لهودي مر سوامع كن nañ dem jàngiwaat mbindum Serigne Touba mi te yaatal dënn yi te dalal xel yi xam ne kenn mënu fa yàqal kenn dara kenn munta a xeex kenn yàlla noppi na ci lépp waaye ku yaakaar yàlla wéeru ci yàlla doyloo njàngaleem Serigne Touba te di ko jéem a jëfe na xam ne fu mu mën a nekk Serigne Touba nga ànd ak moom ndax xaribun baid dafa am ak baidun qarib am na ñoo xam ne ci buntu jumaa yi la ñuy dëkk guddeeg bëccëg bu ñu geesoo laal sëriñ bi fi mu nekk fi ñu ko mujj gise te sëriñ bi nee na ñu ma sori lañ am ñoo xam ne ña nga ca Australie jege sëriñ bi lool jege ak sore gi amut barab amut espace amut amut amut temps ci pas-pas la nekk. képp koo xam ne kii mu ngi wax ak ñëw waxu ne yàlla waxu la dëgg waxu la jëriñ ëllëg lu lay lor te ngi lay wor. wax ba wax jeex dëgg ca gën te dëgg ba dëgg jeex dëgg dañu wax ngir yàllaa ci bëgg ku la neex mu mel na nga neex xanaa bu doon loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bàyyam ba di gaañu wala maamam ja bi naa ko qul laa ilaha illallah rek sa affaire baax yéene ko ko lool mu ne ko rus na ko rus naa wax baat boobu ndax maamam ya yàlla ne ko innaka laa tahdi man ahbabta da nga defe ne ku la neex mu mel na nga neex déedéet